la la

la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 Serigne Touba nako bo demel ni libre Fall nako la fa ci xar nako dak indil ma su joge ci julli kay lu mu fekk rendi ko loolu moo sabab tay ji njabotuk mam Cheikh ibrahim Fall di yóbbu ay tabaski ci ki fi nekkal Serigne Touba Cheikhul Khadim non la ko Cheikh Fall dan doxale ci jamonom diko yobul ku teddi ki Serigne Touba Cheikhul Khadim jóge fi Cheikh Moussa Fall wutu ko ñaar fu kat diko yobul Serigne Touba Cheikhul Khadim di ko yóbbul Cheikh mourou Moussa Mbacké waye ba diko yobul cheikh Cheikh al Fadal ci juroom yaat yi nga xamni ànd nako ak mom ba tay ji Serigne Cheikh jëmm wéel liggéey bobu jëlé ko ci magam ju bax ci Serigne Modou Falilou Fall mu Serigne Modou Aminta yàlla na yàlla yok ay leeram waaye tamit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 waaw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 jumaa jam ñu jam jam ñu jam yàgg na mbay mbay mbay mbay jërëjëf jërëjëf ma toog dewa Sali Sali Fall Moussa Mouda Minde Sali Fall Moussa Mouda Minde La ilaha illallah la la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 waaye nag ginnaaw yow teew nga rek <laughs> ñu lépp teew na mhm. jëf ji daal noonu yaa nga nangul na ko amiin te boole na ko jëfi seerafal jëm na jëbal sëñ Tuubaa waaw na nga ko boole ñaari jëf yooyee ñooñu rek ñoo fi nekk bari yaa fi sëñ Tuubaa yaa fi seerafal ku ne liggéey baa ngi nii yàlla na fi yàgg mbàkke te wér yàlla na fi yàgg lool te wér jërëjëf suñu xol seet na baax sëriñ Cheikh sëriñ bi nee na yore wàll dégg na kàddu yi sëñ Fàllu yi waaye nee na amati na mbégte mu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 ji ma am. tawfeex ji mu am. ba gën leen a fekk si ci liggéey bi. ba gën leen a fekk si ci liggéey bi. loolu rëy na lool ci man. nee na rëy na ci moom lool. dal na sama xel lool. nee na dal na xelam lool. dégg na kàddu yi. nee waaye dégg na kàddu yi. sama xel dal na ci kàddu yi. xelam dal na ci kàddu yi. nii ma ko waxee rek ni lay amee. ndax nii ko sëñ Fallou waxee rek ni lay amee. dégg naa ko bu baax a baax. nee na dégg na ko bu baax a baax. sama yéene ci yéen rëy na lool. ndax yéeneen ci yéen nee na rëy na lool.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 yéen laa mel na ne yéen laa ko gën a yéene ci sama bopp. te nee na mel na ne yéen la ko gën a yéene ci boppam. kon nag lu ma ci bëggal sama bopp. nee na kon lu lu mu ci bëggal boppam. bëggal naa leen bëggal naa leen ko mbëggeel gu mbëggeel gu raw gu raw gi mu ko bëggal. bëggal na leen ko mbëggeel gu raw gi mu ko bëggal boppam. sama xel dal na bu baax a baax. nee na waaye xelam dal na bu baax a baax a baax. dal na bu baax a baax ci yéen. nee na dal na bu baax a baax ci yéen. ne xolam sedd fii.